voilà mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañ ci suñu émission bi nga xamee ne moo di jano bi euh, tey jii nag itam ñu am gan goo xam ne gii moo di Birahim Yaya Wane nga xam ne opérateur économique la ñu xam ko ci wàllu koom nekk itam ki nga xamee ne moo jiite président conseil national bi nga xamee ne des dirigeants d'entreprise maanaam ñi nga xam ne ñoo yore entreprise ci biir Sénégal conseil national boobu yow yaa ko yow yow yaa ko jiite yaay président bi li jëm tamit ci innovation yee salaat ko itam ak wàllu croissance maanaam li jëm ci wàllu économie li koy yokku yokk goo xam ne gi askan wi war nañ ko war a mën a yëg itam ak conditions yi nga xam itam loolu dañuy fexe daal ba mu gën a yaatu surtout itam nga bokk tamit ci chambre de commerce bi fi nu toll nii ñi nga xam ne dañoo bokk ne gi tudd ànd defaraat chambre de commerce loolu tamit am nga fa ndamba ci émission bi ñu tàbbi ci waaye comme eh, Birame eh, Yaaya woon eh, kenn ku ne xam na ne yow ci wàllu économie ngay yëngu te réew mi fi mu toll nii kon nekk na ci ay mbir yoo xam ne doy na waar lool ñu jox la kàddu gi nga nuyoo ñu dem ci waxtaan wi. jërëjëf El Hadj Maodo. Mhm. Mm, maa ngi lay nuyu et puis nuyoo bi tamit maa ngi ci yóbbaale njiitu groupe Sud FM yëpp. Mhm. di am vraiment. Mhm. kontaan ñëw ci émission bi jano bi muy émission bu mag bi nga xam ne ni euh, Sénégalais yëpp a ngi koy déglu. may ko nopp. vraiment maa ngi leen di euh, féliciter et puis euh, di am vraiment mbégte. ñëw ci invitation bi. d'accord mais en tant que opérateur économique. fu économie réew mi tollu réew mi réew mi réew mi sanax na de sanax li naan sanax ci wolof mooy demuñu dikkuñu. jërëjëf Maodo. Mhm. xam nga économie moom ku ma ci euh, laaj rek dama ci am kontaan te am sawarte di ci wax. Mhm. surtout économie réew mi fii ñu toll nii. Mhm. Euh, économie réew mi fii ñu toll nii guddi yi ñu nekk vraiment guddi gu bët métti na te vraiment autorité fii ñu toll nii guddi yi nii xamuñ fi ñuy teg seen nakk ci côté économie bi. waaw moo tax euh, métti na te comme li ma koy waxee temps yëpp. ñu ñu ngi yuuxu. waaye salaire bi moo ciy topp te salaire bi moom yàggatul. sa salaire moo gën a métti yu. ah mais euh, mais euh, ci na acte la xam nga économie ci réew surtout euh, réew mu mel ni Sénégal nga xam ne dañuy wax ne PPTE la. Mhm. mooy pays pauvre très endetté. Mhm. nga xam ne amuñu taw bu baax. Mhm. matière première yi ñu am. même bu fekkee ñu koy exploité. ñu ngi koy exploité baaxul. ñu ngi koy commercialisé baaxul. donc tey métti na tey ci Sénégal. nga xam vraiment fooy teg sa tànk sur le plan économique pour xelal njiitu réew mi xelal gouvernement am nga xam ne tey lépp luy création emploi luy création richesse ci ci dëkk bi dana tegu ci yoon mais vraiment loolu fi mu nekk nii yoon boobu gisaguñ ko yoon boobu tega nekk tegoo ko mais mais en tant yow nga jàngal tax nga ne gisaguñ ko foo foo teg na gisaguñ ko gars yi am ay cadre am ay ay technicien ne ci ministère yi di liggéey nga ne gisaguñ ko yow tamit xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga actuellement métti na métti boo xamante ne man ñi nekk ñi tey ci ci nguur gi di xalaatal économie bi di xalaatal askan wi man foog naa ci ay théorie lañ nekkagum fi mu nekk nii ah bon ay théorie ñu ngi ci ay slogan. est-ce que du pandémie bi moo jaar ci diggante bi. ah mais xam nga pandémie pandémie pandémie dañ tegee fee pandémie pandémie bi avant muy ñëw fii sax fekk na ñu ngi ci coono fekk na ñu ngi ci joote xam nga tey man je me dis que tey gouvernement bi priorité tey nii. Uh-huh. économie bokk bokkagu ci. et guddi yi ñu toll nii nii nii nii priorité gouvernement bi politique lañ gën a gis ci acte ñoom yi ñuy posé que économie. moo tax tey mais économie moo yor réew. Eh moo yor réew mais xam nga économie lu mu yor réew yor réew. Mhm. dafa am ay pàcc yoo xam ne ci ay secteurs d'activité ci ay piliers de développement. yoo mhm. xamante ni oui bien sûr. buñ ci euh, deful sunu sunu dool yëpp def ci sunu xam-xam yëpp mënuñoo xaar lu ñuy wax émergence surtout émergence bi nga xam ne tey gouvernement bi moom la bëgg a. Euh, émergence mais mais mais comment comment comment ci naka. non xam nga euh, man. xam nga balaa ngay waxal tey ci acteur économie yi. Mhm. day fekk yow nga nekk acteur économique ba tey. yow acteur économique nga. waaw moo tax tey man balaa ma wax ak su may su may morom. Mhm. may wax ak samay samay samay nawle. Mhm. day fekk man mi en tant acteur économique. problème yu may rencontrer. pour mën a développer secteur yi d'activité yi ma ne. nga xam ne man euh, muy par exemple man mi nga xam ne si transport laa ne. muy transporteur muy transport maritime. li may xaar ci sama état tey. gisaguma ko. ah bon moo tax am na ñoom moo bu ñuy gën a utiliser tey. Mhm. di wax partenariat public privé. PPP. Mhm. dafa doon euh, moo boo xam ne. Mhm. président c'est rare muy dem fenn te du ko wax saa bu tuddee secteur privé mu ngi tudd partenariat public privé. te partenariat public privé bi. daa daa doxul. non doxul non doxul mënul dox. te ah. xam nga li gën a garaaw mooy tey nga ne ci réew moo xam ne. Euh, xamuñu lu ñuy wax hiérarchisation des priorité lenn lu ne la ci war a tegu tegu ca. waaw lu ne ak ak ko li nga war li ko waaw mooy la ci war a tegu tegu ca rek. li nga war a mhm. xamuñu ko. moo tax day day day gën di métti. te xam nga li gën a garaaw nag mooy. Mhm. xam nga gouvernement bi ci boppam. Mhm. am na secteur privé am. mooy chambre de commerce yi. chambre de commerce mooy cadre institutionnel bu secteur privé. gouvernement bi. dafa secteur privé mooy chambre de commerce yi. chambre de commerce ay établissement public lañ à caractère professionnel. gouvernement Sénégal tey amuñ droit tey wax naa la amuñ droit projet bu gouvernement tey développé ak fu mu munti doone muy euh, BRT bi. Mhm. dégg nga muy euh, sunu train bi euh, express TER bi. train mhm. express régional bi yooyu yëpp amul dara lu gouvernement tey war a mën a signer engagé. boppam même ci infrastructure yi. même ci infrastructure amul droit dem def dara te jaarul secteur privé ci cadre institutionnel am. président Macky Sall tey balaa moo siñe benn projet dafa war a jël projet bi nii jox chambre de commerce ñu liggéeyati ko saytu ko defal ko ay recommandation yu wóor bu fekkee lu mu war a signé ñu ne ko gëmmal siñe bu fekkee loo xam ne waru koo signé ñu ne ko lii bu ko signé wala bu fekkee ne lii dama koo bëgg a ñu ne ko mën nga koo signé ah mais na fekk ni tey transfert de technologie lañ jiital ñu jox ko ci jox ci ay tegtal yu wóor mais fii da ngay xëy ñu ne signé nañ lii signé nañ lee te li gën benn fonctionnaire rek mooy dem. jël signature peuple bi apposé ko. Hmm? ci këyit te ñun secteur privé yëguñu ko moo tax loo ci gis ay lajj rek ay lajj rek. mais mais mais d'accord mais mais mais Birame yaaye woon man li ma jaaxal mooy li nga wax ci économie bi donte nee nga dafa da da dañuy yuuxu wala dañuy saleeru mais dans ci Sénégal gi am na ay organisation yu yëngu ci wàllu économie ay CNES ay kilifa nekk ci ay COSEC gars yi di dem di dikk nga ne nga ne affaire bi doxul. léegi xam nga xam nga tey. ñoom ñu bañ bañ ko tudd ko naa nga xam ne ay kilifa affaire bi ñëw. waaw loolu laay wax xam nga tey man sax ci secteur privé. waaw dama dama ko commencé di ko di ko def ay ay ay. strat ay ay ay ay démembrement. waaw secteur privé da nga koo dog dogee. waaw da nga koo dog commencé ko hiérarchiser. Mhm. parce que secteur privé tey am na ñoo xam ne ay acteurs économique dëgg lañu. ñoom ñaq jëriñu liggéey. cela veut dire am na ñoo xam ne ñu duñ am na ñoo xam ne ay secteur yooyu ñu laay wax secteur privé opérationnel. waay am na secteur privé boo xam ne tey ay xuusmaa ñàpp lañu mooy déet déet déet waay déet waay non ay xuusmaa ñàpp lañ koy wax comme ni mu leen mu leer rek mu jàmm ñoo xam ne tey du du duñu ay bolle puy de lañu tekk wuñ dara démb ak tey te mënuñoo tekki dara am na secteur privé yoo xam ne euh, man homme d'affaires laa rek wala man acteur économique laa rek mu yem ci làmmiñ bi kese mais acteur économique tey mais du mais la xam lu ñu xam looy def non non acteur économique dëgg-dëgg tey yi nga xam ne ñoo war a accompagner état bi pour ñu def vers émergence bi état bi bëgg. loolu bu ñu koy compter buñ matee ay ay fukk mënuñ koo we mënuñ ko ëpp. Sénégal yëpp. Sénégal yëpp mënuñ ko weesu te ñooñu tey fii ñu toll nii ci suñu ay gëstu état bi fii ñu toll nii tey bu bëggoon tey wàññi joote bi day dem sax ci ñooñu par exemple tey nga ne dem naa ci groupe. Euh, Sedima nga ne ko léegi bëgg naa ko ubbil ma Sedima ci Sénégal yëpp wala nga dem ci MSN nga ne ko Fleur de Lys hôtel bëgg naa ko ubbi Sénégal yëpp comprendre parce que tey guddi yi études yi ni mu joxe nii mooy ay individualité la ñuy dem par exemple nga ne tey rajo Sud FM bi dox na mais tey da nga wane à l'échelle nationale wala nga xool homme d'affaires bi xal secteur bi mu ne nga ne ko yow tey état dina la accompagner nga nekk à l'échelle nationale mu doon ci ay secteur d'activité yoo xam ne sénégalais soxla nañ ko mm-hmm. comprendre rural bi pour freiner aussi euh, créer richesse ci terroir yooyu yëpp parce que li nga mën a remarquer Sénégal boo génnee Dakar rek même pour ak foo mun munti dem pour nga am hébergement nga dëkk fenn fu baax dana la jafe pour nga lekk fa lekk bu baax wa dana la jafe. Hmm. parce que kon mën nañu wax ne tey Sénégal yëpp ci dakaar kese la yem yëpp fii la concentré wu loolu tamit coono la. loolu tamit ci échec gu gouvernement bi lañ ko mën a calculer. d'accord euh, Ibrahima Yaya woon kon su ma la déggee bu baax a wax am am réew économie moo koy doxal mais nee nga bi doxul te ku tudd économie da nga tudd commerce yow yaa tudd léegi chambre de commerce est-ce que nan nga gisee secteur commerce bi ci biir Sénégal dafay dox wala doxul parce que ministère bi nga xam ne tam ñoom la ñu denk wàllu commerce en tout cas weer yi ñu génn moom coow li xaw ma asom lan jaataa la xaw ma en tout cas en tout cas ci wàllu commerce bi daal ni muy tëddee parfois ñu ne prix sangam parfois ñu ne secteur sangam lii dugg na euh, téye na exportation nangam def nañ gel ci benn produit mais ça ne va pas trop ah wax dëgg yàlla. xam nga xam nga xaw ma nag xaw ma nag ci ministère bi la xaw ma. xam nga secteur commerce bi dafa dafa xaw a compliqué compliqué na compliqué wul mais bu fekkee secteur la boo xam ne dañ ko politiser avant même ngay wax madame Aminata Assome Diatta da ngay jaar ci ci Alioune Sarr. Eh, Alioune Sarr jaaroon na fi ah, effectivement moom la joo joote yu bëri coono yu bëri ñam euh, ci ci ci Alioune teg la ci euh, moom moom coono yi commencé ñu ñu am sax yu bëri. ci Alioune la jóge déet waay non Alioune Sarr moom wax dëgg yàlla euh, puisque parti politique la te mu nga jógee AFP mënuñ cee xuus wax ci lu bëri waaye de façon moom échec bi ministère commerce am yëpp moom di ko gën a méttil ci moom la jógee. da ngaa bëgg foofu la tàmbalee. waa fa la tàmbalee waaw mu fa la ci moom la taree. li comme li ma ko wax man gis naa ko mu taxaw ak jaata Diatta keroog 29 septembre bi ñu def conseil présidentiel pour la relance économique fekk naa ko jam ñaajo mu taxaw ak madame Aminata Assome Diatta ma ne ko coono yi ñu am ci commerce yëpp tey ci yow la jóge carrément mu may xool ma koy xool. waaw mooy ma ne mooy xool mooy xol mënul ci man ñaari salaamaaleykum loolu la problème bi loolu la mais xam nga secteur boobu fi mu nekk nii euh, euh, c'est c'est malheureux c'est déplorable waaye coono yi ñu fa am ni day gën di tar parce que dafa doon ministère boo xam ne tey boo jëlee ministère du commerce. import export bi. non ci ci ci gouvernement bi yëpp. Mhm. mooy ministère bi ëpp importance. ci ci ci ci gouvernement bi yëpp parce que li ko dalee tey ci pañe kiy dem jama. mais doo ko mais doo ko sentir. waaw ba ci euh, ba ci bu gën a rëy yëpp ci ministère du commerce la parce que ministère boobu sax tey président bu am euh, bilan ci ministère boobu la kuy laaj tamit ci ministère boobu la. donc dafa doon dafa dangereux sax garaaw nga jël ministère boobu nga jël ab policier jox ko ko kooku technocrate nga ko war a jox. ah bon xaw ma ak ministère boo mun di jox commerce moom technocrate nga ko war a jox. ku wala ku xam commerce wala. non ku am xam-xam ku xam-xamam màññ màcc ci ci ci ci économie. Mm-hmm. ci gis-gis waaw. anglais mun la ci ci nekk nekk un open mind. xam sa xel dafay ubbeeku. Mm-hmm. waaye boo ko joxee ab politicien boo xam ne tey euh, vraiment. yëpp réew c'est poli yëpp ci làmmiñ rek la mais ko politiser bu fekkee dégg naa la non non bu garaaw parce que euh, te ministère boobu ministère AFP la mos a doon ba ci asom jaata bii nii lañ ko mujj jénne ci loxo AFP jox ko kii dañ ko politiser dañ ko politiser te ñi ko politiser yëpp tey coono Sénégalais yi nekkul seen problème ñu ngi indi ay problème di gën a indi problème mais problème day gën di tar foofu ba ci tout dernièrement yëg nga problème suukar bi ci ay problème dipa mhm. man ba ma laajtee def su may gëstu nee nañ duwaan a bàyyi euh, suukar bi dugg te duwaan tey man ñi ma fa wax nekk fa ay kàngam ne ñun nu mënuñoo bàyyi suukar dugg te joxuñu dipa te loolu tamit lu nopp mën a dégg la léegi fi mu ne nii dem nañ ba société bu mel. waaw ñu ngi coow ñu ngi. nee na ñu ngi waaj a licencier 5000 emplois. waaw parce que dañu wax rek ah, concurrence ah, ah. déloyale bi moo tax. kooku il fallait s'y attendre il fallait s'y attendre. ñama tey wax ma man xam naa lañ ma wax dëgg la donc coono tey bu amee ci ministère di commerce la mais puisque tey ministère bi ñu politiser la conséquence yëpp bu fekkee tey état bi moo autoriser loolu bañ mettre CS dans CSS dans des difficultés CSS tey tey bu bu bu bu bu licencier emploi emploi tey licencier employé foofu bu kenn wax su boobaa man dinaa jël défense su CSS emploi bu ñu fi mun bu ñu fi mënti euh, licencier employé bu ñu fi mën a licencier gouvernement bi moo. pour yow c'est l'état mais moom responsable. moom rek ñaar moom rek mooy unique responsable. te état li mu nekk ci responsable te secteur dafa bëri ba ci suñ chambre de commerce bi. waaw dégg naa coow foofu 29 septembre coow demee conseil présidentiel pour la relance économique gis nañ ñun ñii. loi bi bu bees bi ñu ñu ñu voté pour créer la chambre euh, de commerce d'industrie et de service nga xam ne loi bi ñu ko créé ñu ngi ko créé en 2017 loi boobu la loi 2017 15 ah. nga xam ne ñu ngi ko créé euh, la loi 2017 15. ah nga xam ne ni bi ñu ko créé la chambre de commerce d'industrie et de service. loi boobu ba tey may wax ak yow ni 2017 2020 euh, bi 3 ans amuñu amuñu décret d'application. ah bon. mais yéen code de la presse jour boobu laa dégg ci moom nee na code de la presse. waaw waaw après après ko même même jour. oui ci 2017. oui mais ba tey waa <laughs> simple sax ko wote nañ ko mais ba appliqué loolu nag coono gi mu ñu indil tey jural ñu ko. Mhm. mooy mooy immobilisme mooy kenn demul kenn dikkul ñun tey élection yi ñu demoon tey 2010 ñu ngi ci 2020. Mm-hmm. ña toogoon chambre de commerce ñoo fa toog ba tey. fukki at fukki at ñu manqué wul dara ñu ngi demoon élection le premier août premier tour ak le 22 août deuxième tour 2010 ba tey jii nii euh, ci euh, mois de novembre 2020 ña fa toog ñoo fa toogoon ba tey bougé wul mandat chambre de commerce cinq ans la bu cinq ans yi jeexee mu am problème ministre am na droit proroger par arrêté un an mm-hmm. muy six ans. bu six ans yooyu jeexee président la république am na droit proroger d'une autre année supplémentaire benn at muy sept ans sept ans yooyu bu jeexee mooy julli tubaab. c'est fini c'est fini donc tey ñu ngi ci deux mille vingt mandat boo xam dafa am problème cour d'appel ba ñu demee élection sunu gars yi ñu doon nekkal face à face liste diisoo sàcc sàcc yu bon ñu attaqué leen devant la cour d'appel muy juge élection yi ñoo ñooñu sur neuf sous-sections su euh, cour d'appel da ci annulé trois. ñu dem cour suprême ku ñoom def pourvoi dem cassation cour suprême annulé deux muy cinq cinq sur neuf te dañ annulé woon seen sous section ku mel ni man mel ni Ablaye Sow bi nekk foofu ne mooy président chambre de commerce ak membre bureau am yëpp nga xam ne ñëpp dañ leen presque annulé su euh, euh, ñett wala ñenn ñi nga xam ne annulé wuñ la mais ñoo ñax yëpp dañoo annulé seen sous section te ba tey ña nga fa toog. loi bi moo ko annulé. Euh, cour d' appel cour d' appel bi waaw tribunaux yi quoi tribunaux yi waaw tribunaux ñoo ko annulé te loolu 2010 ñu ngi ci 2020 man dama dama dem ba affaire man daf ma yéem ci loo xam ne fan la xewee dëkk boo xam ne ni président Macky Sall moo ko jiite un président né après les indépendances nga dem devant le pouvoir judiciaire xeex ba yor ay arrêt pouvoir exécutif war ñëw exécuter ko ñu ngi ci c'est-à-dire c'est-à-dire c'est-à-dire bañ a fa toog toog fa. te ña fa toog bu fekkoon sax am nañ xam-xam bi am gis-gis bi pour mën a tey li ñuy xaar ci secteur privé institutionnel. Mhm. mooy def ay proposition mhm. ci état pour wax état fu muy teg tànkam bu fekkoon sax ña fa ne am nañ xam-xam boobu man duma wax dara ku mel ne Ablaye Sow ba fa ne niveau CM2 la am bëgguma sax di wax waxu niveau mais bu fekkoon sax ñu ngi ci secteur boo xam mu ngi ci commerce dem ak ñëw am ci expérience waaw dinaa di ma ci wax dara. mais moom secteur bi dafa nekk secteur spécial affaire bant la. mais loolu mais loolu du ñoom gouvernement bi la gouvernement bi ñoom ñoo laxis. ñoom xam nga xam nga xam nga échec eh, eh, bi tey. Mhm. booy toog di ko lim ci say loxo ah man munoo mun ñu fi jóge mais loolu daf lay mujj jaaxal parce que tey munoo nekk dans un pays bu mel ni Sénégal nga ñëw indi ay arrêt pouvoir judiciaire jugé teg di jugé ku mel ni président Demba Kandji 53 magistrats mu jiite ñu toog ci salle. génn ay arrêt te président Demba Kandji kenn du la wax mooy kan moom mooy président bi wax président Macky Sall yaa gagné président Abdoulaye Wade parce que mooy président cour d'appel mooy juge des élections mhm. kooku mun na génn ay arrêt jox tey pouvoir exécutif ne exécuter leen lii ñuy toog di xool ne c'est-à-dire c'est-à-dire wala lii ak lii ak ba ba bàyyi fa ay nit ñu war la toog 10 an tey su dul yàlla ak ay ak ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay mbiram ña fa toog ña nga fa toog rek. mais mais est-ce que fa toogee ba léegi gis ngeen ne après a maa dikkaat ci wàllu économie réew mi gis ngeen ne mi ngi avancé sur lépp chambre de commerce yaa ngi dox au niveau national au niveau de Dakar wala da a gis ne dafay stagné wu. xam nga xam nga. taxaw benn place wala lu xew. non non seulement ñoom xam-xam bi xam nga da ngay jël benn biro bu mel ni nga ne président Abdoulaye Sow la. Mhm. amul xam-xam bi amul gis-gis bi amul carte visite bi lim mënee temps yi mu ngi koy jéem a wane mooy ñëw def affaire lobbying barki démb yegg naa dem na marché international ak garde des gros parce que ne da koy visiter parce que mën na am état bi da ko war a jox yu mel noonu état bi da ko dul jox tous parce que chambre de commerce yi ñu nekk fi Sénégal benn existé tul parce que chambre nationale moo am léegi ànd dafa ab délégation ne dafay ñëw pour visiter ak yu mel noonu ak genre euh, li li nit ñi wax dox sa dox maay na gouvernement ok ok waaw comprendre nga d'accord mais xam bu lee noonu nga jël Ablaye Sow amul xam bi amul gis-gis bi section ba mu nekk agriculture nañ ko annulé te coono ñu am chambre de commerce yëpp moom moo ko indi parce que wuruj yeeg sàcc yeeg fen yëpp moom moo ko dugaloon ci élection yi. d'accord mais ku mel ni ci. sous section nee nañ ko non seulement il ne peut être ni électeur ni éligible place indépendance sax waru faa jaar comprendre ak ñeneen ak ñeneen mooy toog leen lim fii. fii la ñu toog d'accord mais mais mais wax nga ko wax nga ko léegi yow da nga pratiquement dans tous les secteurs yoo xam ne dafa am économie tudd nga commerce léegi ne pratiquement mooy ministre bi ëpp solo ci gouvernement bi ndax ci ambulant bi ba ci entreprise bi ci kaw yooyu yëpp bi gën a mag euh, ci la bokk tudd nga léegi mais mais COSEC lan parce que foofu war nañ fee dem parce que COSEC dafa nekk conseil des chargeurs loolu la tudd gaay sénégalais des chargeurs waaw ndax ci réew mi la nekk ay sénégalais ko jiite ñu ngi nuyu sax le directeur général mais dama ne ci loolu euh, dafa am yu wàcc ci port bi ay affaire dugg di génnaat mais kooku ay milliards lay dugal ci biir réew mi. xam nga port bi ay milliards lay dugal nga ni Sénégal seen économie doxul. xam nga ni nga ni nga nuyoo directeur tamit noonu laa ko nuyoo ku baax la. ku yaru la ku teey la Momadou Dione man tey maa ngi ko nuyoo passage. waaye Momadou Dione dafay ñëw fekk ay textes yoo xam ne da koy da koy dawal. COSEC képp ku dédouané rek. boo ubbee sa euh, kii bon de de dédouanement bi. yaa ngi seen ci ginnaaw taxe bi ngay fay COSEC. lu génn ci port bi ci kon ne COSEC am na ci. ak lu mu doon waaw lu mu mën doon COSEC am na ci pourcentage les pourcent lañ koy jël nag versé ko ci léegi sax versé tuñ ko kees COSEC directement ministère de finance lañ koy versé. ah finance la ñu yóbbu xaalis bi léegi. léegi yóbbu nañ xaalis depuis deux trois ans lañ ko yóbbu foofu mais am na le montant bu am solo. quelque deux milliards je crois. mooy bu rek COSEC wala leen jox après dañu defee loi de finance rectificative bi am na lu ñu jëlaat mhm. wax dëgg yàlla euh, amoon nañ ci seen gafaga vraiment xaalis bu doy boo xam ne ni même plan tàkkal bi dégg naa am lu ñu jëloon. dugal ci dugal ci. mais COSEC texte ko régir arrêté bi dafa doon loo dafa xaw a yàgg parce que ñun ci. yow dafa caduc. dafa parce que tey. quarante six membre ñooy assemblée générale bi dix UNACOIS la six membres. Mhm. yeneen dix membres yi CNP conseil national du patronat. Mhm. yeneen di membres yi CNES conseil national des employeurs di du Sénégal confédération nationale des employeurs du Sénégal yeneen di membres yi GES groupement économique. Mhm. di Sénégal mooy yàgg yàgg yoo xam ne déggatoo leen sax ñooñu at bu ne ku nekk am nga cent millions. ah bon. nga cent direct. xam nga moo tax. tey mais non attends attends non non li ngay wax ni c'est important ah. dañ yow da nga da nga trois secteurs yoo xam ne dañuy yëngu ci euh, quatre. quatre quatre yëngu ci wàllu économie patronal waaw. CNP CRES GES. ku e e. nekk dix membres la. waaw ak six yi. mooy douane am na benn ministère des finances. Euh, vraiment chambre de commerce bañ mat six représentants muy quarante six membres assemblée générale bu euh, boobu. Mhm. man attaqué naa ko bind naa président ne arrêté bi yemalewul Sénégalais yi yemalewul secteur privé ñoom at bu nekk ku nekk am nga cent millions direct. boo xam ne boo xam ne ñu jox la ko nii. waaw boo xam ne dañ la ko dañ la ko dañ la ko dàmpee rek la ko moo tax ji nga tey organisation. waaw mais mais mais mais xaalis boobu fu mu jógee. mooy mooy mooy. contribution mooy contribution yi mooy ci ci keesu COSEC bi noonu. loolu attaqué nañ ko bind nañ président man bind naa président bindaat ko. président Macky Sall. waaw mais mais. il n'a pas répondu. tontuwuñu tontuwuñu président nag duy duy koy gaaw a tontu nag de. ah bon waaw président moom côté courrier moom moom kiiwul moom moom moom moom gaawul. waaw côté courrier Macky Sall du répondre moom moom wax dëgg yàlla gaawul. di nga ko bind xaar ab diir diir diir doo doo sax jot réponse est-ce que est-ce que aussi jot na ci. waaw mais loolu nag mun nga xam. wala wala def da ngeen def décharge rek. di bu yàgg ba sax daan nga jot sax benn SMS nee la jot nañ courrier bi présidence même yooyu sax jotatoo ko waaw loolu te mu doon te nag ñun saa bu ñu jógee jël suñ responsabilité. Mhm. jël suñ big saisir président mooy secteur boo am na problème. te ñun li ñun presque at weer yi passé ci lañ dëkk di saisir président di ko saisir. du benn du ñaar ba ci problème chambre de commerce bi nga xam ne ni amoon na wuruj boo xam ne nee nañ président moo ko avalisé bind nañ ko mais tontuwuñu ah bon boo xam ne bi loxo chef de l'état da ci dugg citation directe bi ma leen defal yóbbu leen tribunal mhm. mardi bii di ñëw mooy délibéré bi ah mhm. parce que ñii dañoo dem euh, waa membre bureau chambre de commerce dañ dem feneen président ne président moo demandé à ce que ñu organiser assemblée générale sans tenir compte ci sous section yi nga xam ne cour d'appel moo ko annulé moo ko annulé ma jël sama big ma bind président de la république courrier baa ngi nii mais ba tey jotuma réponse jotuma réponse interpellé ko nga inter da nga ko interpellé ci 18 juin 2020 courrier baa ngi nii président tontuwul waaw c'est waaw waaw mu ngi noonu Birane yaa yoon wax nga dëgg de waaw mais mais mais mais lu tax mais loolu loolu mais loolu day indi kii blocage lay indi mais mais mais man blocage boobu xam nga blocage boobu sax mm-hmm. man man man méttiwu ma Maodo hmm? man kenn du ma woo 2024 ne ma rendre compte Sénégalais yi. yow kenn du la woo. déedéet te li ma wóor ba wóor. Hmm. fii ma bloqué gars yi. Hmm. duñ buuse meetar. ah bon. ma kooku kay ma ak suma gañok bàyyi duñu buuse meetar man loolu man man man man maa ko def jigéen ñi xeex bi ñuy xeex yépp mooy ñi nekk ci gouvernement bi ministre ku benn ni ministre Alioune Sarr wala Assome Diatta bi ñu jox leen ay directives yoo xam ne duñ ko respecté. waaye man tamit bëri naa pexe yoo xamante man tamit danaa téye ñëpp buuse leen ñoom ñëpp te kenn du buuse meetar maag samay pexe ak su may ak su sumay ñoñ. duñ buuse meetar léegi nag bu lépp lërmeeloo nag léegi bés bu ñu bés bu lépp lërmeeloo danañ xam ne kan mooy rendre compte. mais mais mais loolu attention yow li nga wax ni eh, Birane loolu mën mën na law balaa secteur yu bare bëri ah, parce que c'est transversal day day. xam nga mais li nga wax ni dafa garaaw. xam nga xam nga ñu fi ne amul benn secteur tey booy gis uh-huh. Sénégal. Euh, euh, autosuffisant ci. Mhm. ba nekk exportateur. c' est que ñun xeex bi ñuy xeex nii par exemple. Mhm. personnellement. Mhm. en tant que acteur économique. maa ngi xeex ci ay secteurs yoo xam ne damay bëgg a tendance bi. xam nga tey boo jëlee transport ñu ne Sénégalais yi nga xam ne dañu ay voyagé kat yu mag a mag la ñu pour ñu dem Mali bii sax ay bisu Malien ñoo ñëw jël si leen yóbbu leen. war nañ inverser tendance bi parce que le problème de patriotisme économique ñu ne tey am nañ 718 kilomètres ci biir géej gi boo xam ne amul fenn foo xam ne rek mën nga faa dem toog noppalu ah wala dem fa ak bateau ah mu munoo ko. te mu doon yooyu yëpp nag secteur bu ma la tuddal ay création d'emploi yi dul jeex la. moo tax tey bu ñu wax ne xale yaa ngi dem géej ñii ñu ngi dee fi. man damay ne tant que cinq 1500 morts rek. eh ñaanu ma ko yàlla man rek mën naa rek la problème bi lan lañ bëgg lu ñu suturloo. comment ça. mais ah mais mais ñu la. waaw il faut que jox leen ay moyens wala ñu ubbi leen bunt yi. non mais xam nga la may expliquer. Mhm. président Macky Sall mooy président de la République du Sénégal. oui. Sénégalais yi dem nag ils sont d'égale dignité. oui président nag dañ la wax ni tey dépense bi xaalis bi peuple bi jëf ci kees nga war ko gérer war ko saytu la nga xam ne ñoo hiérarchisation des priorités. Mhm. xaalis bii ngay jël fii par exemple nga jël lu mel ni caisse de dépôt et de consignation. Mhm. nga xam ne am na xaalisu réew mi yoo xam ne dugal nañ ko seen ay caisse. Mhm. tey balaa ñoo financé ci ay bâtiment yu jóg suba ngoon mais bâtiment bu jógee. mais ay cinquante maçon la bu ëppee bu ëpp. buñ paree un an deux ans trois ans ñu ñu dem wuti leen mais boo ko dugaloon tey ci secteur boo xam ne ñëw nga tey ci li ñuy wax partenariat public privé. Mhm. ku mel ni man nga xam war naa indi six cent bus fii ma toog nii. war naa jënd huit bateau fii ma toog nii. transport ak deux bateaux restaurant ñu ñëw leen de ubbi naa sama capital société dugg nañ ci nañ régler loolu mais ñaata emploi nga mën a créer direct ñaata emploi indirect nga mën a créer de mënoo ko lim mais problème bi tant ñu ngi toog fii ne chômage bi bëri na bëri na te appuyer woo le secteur privé opérationnel appuyer woo les ces entreprises là ci seen i secteur d' activité ci pilier de développement pour sa réew mën a développer doo buuse ñaari meetar. mais mais est-ce que est-ce que secteur privé bi également ànd nañ parce que dafa mel ne dafa mel ne ñii dañoo dem gauche ñi jëm droite jëm ay yeneen idée yow yéen a ngi yow yaa ngi nekk nii jiite opérateur économique yi nga xam ne yéen yéen a créé seen conseil national ah boo xam da ngeen bëgg a innover xam nga innover mooy beesalaat. c'est-à-dire que kon li fi nekkoon dafa caduc wala baaxul beneen bi ci tegu itam gars yi dañu wax ne euh, dans ce pays là pour nga investir fii def fi entreprise wala yooyu da nga am problème parce que lenteur administrative bi dafa graw papier yi dugg fii da nga mujj sax découragé yéen mais loolu mais loolu loolu loolu loolu tamit am réew xam nga li may mooy président Macky mhm. moo gën a xam ñëpp ay problème am ah le 29 dégg nga con euh, conseil présidentiel pour la. mooy waaw waaw barki yàggul. xam nga benn moo rek la prononcé. presque mhm. cinquante deux fois. muy le mot réforme. président xam ne lépp dañ ko war a réformer. xam ne lépp dañ ko war a yeesal. réforme réforme xam nga tey da ngay dugg teen ci administration. nga fekk tey décret ba ba ba régir administration boobu. Mhm. arrêté ba ko régir. wala loi même ba ko régir dafa la loi boo xam ne am na trente ans quarante ans d'âge àndatul ak jamono. Hmm? mais yooyu yëpp dafa fekk yoo xam ne da nga koy war di saytu. di xool di proposer maintenant bu fekkee ne tey lenteur administrative yi ñu yor mais mais ñëw tey administration yu rëy ci monde bi yëpp ñu ngi à l'heure de la dématérialisation tey présidence tey bu amee ñaari service wala ñett service yoo xam war na leen soxla dëgg dëgg dëgg agence de l'informatique de l'état la. Mhm. wala bu jeexee ba jeex nga jëm ci privé bi jël ku mel ni Orbis wala gaynde 2000 ne kaay leen liggéey parce que lépp dañ ko war a dématérialiser yëpp lañ war a dématérialiser. même ZLECAf bii nga xam ne ñu ngi waaj a ubbi. Mhm. nga xam ne tey bu ñu ko ubbi woon tey pays d' yëpp dañuy ñëw bokk benn marché. Mhm. ñun ñii danañ xam ne dana danañ ñu danañ ñu lekk ci lu mu gën a gaawee. parce que tey projet yu tey tey bu ñu ubbi woon tey ZLECAf nga xam ne tey war nañ dajeeg ay marché yu mel ni Tunisie. Mhm. nga xam ne sur le plan économique rawee nañu cinquante trois ans boo xam ne dañ ko war a liggéey matin et ñu war a dajeeg ñooñu war a dajeeg ay Maroc bii war a ay Algérie. dañ ñu gaañ wala Nigéria bii parce que ñun am nay problème primaire yoo xam ne mënaguñ koo le mooy problème dématérialisation bii man mi juddoo ko la pour ma am extrait problème la damay téléphoné ba gannaaw suba ci ngoon te ay problème yu tuuti mais moo tax tey sur le plan purement économique ñëw nga Sénégal mën nga am registre de commerce wala créer société en vingt quatre heures maintenant boo amee société créer société en vingt quatre heures mais entre société am ay mën a dundal société boobu mais loolu day mel na ngay laax géej sa sànq dana yàqu sa laax dana tooy moo ko tey tey li war a tax tey économie Sénégal bouge dëgg dëgg dëgg dëgg nekkul tey ci ay préoccupation état bi. ah bon parce que tey a yow pour yow pour bi leen jiital quoi. non bi leen jiital kooku politique bi kooku kay jaratul wax sax. mais man li ma jaaxle moom tey fi nekk nii. yow lu toll ne commerce nga toog finance ministre bi politisé yow daal loolu man la man jaaxal nga ma. mooy mu am ay injustice fu mel ne ay chambre de commerce mu waa ko ñëw réglal ko boppam. voilà yow sax de mais yow chambre de commerce boobu yow sax yow ma laaj la fi benn affaire yow yow yow lu ci sa yoon ba nga naan da ànd defaraat. boo. Ah, ku ku la defarloo ku la kan ku la defarloo ah chambre de commerce. mais xam nga tey fii defar ko mooy ñi war a defar tamit gis nañ leen te dañu war a ànd ak ñoom defar chambre de commerce chambre meelu xam nga lu gën a bon parce que yow da nga wax ne chambre de commerce bi uh-huh. état bi mënut am benn projet bu jëm ci wàllu koom comme terre bi wala yeneen te amuñu ci lu luñ ci lu luñ ci yëg. ñu c'est que xam nga chambre de commerce tey bu doon dox organisation patronale yi ba ci bu suñ bos bi nii. Uh-huh. waroo ko dégg parce que moom moo ñu war a fédéré. waaw ah, mais mi ngi fédéré mooy cadre institutionnel bu secteur privé tey kenn waru wax ci commerce wax ci secteur privé waxoo chambre de c'est la maison de l'entreprise comme ni ñu koy waxee. oui problème bi tey dafa am tey ci réew mi il faut nga remarquer dafa am lu ñu wax dysfonctionnement te dysfonctionnement yooyu yëpp ci secteur yëpp la te amul secteur tey booy dem rek nga laal ko nii rek te amul fuy métti foofu. yooyu c'est vrai que que pêche bi am na problème géej gi accord de ah, pêche yi c'est vrai ah foofu foofu nag moom d'accord naa ne moom comme mi xaw na fee nërmeelu mooy secteur pêche bi. foofu moom xam nga xam nga du secteur pêche kese mais xam nga tey. même boo gisee tey institution yi ngay gis fi yëpp yaa ngi gis DER. yaa ngi gis euh, yaa ngi gis FNPJ. ANPJ ANPJ xam nga yooyu yëpp. yooyu yëpp lajj na. ay Prodac ay ay ay ANAMO. yooyu yëpp laaj dafa doon ay institutions yoo xam ne. te nag président président euh, conseil des ministres bi jàll ni. Hmm. di nga mu ngi bëgg a créer waat. Euh, benn conseil national. pour pour l'emploi des jeunes. waaw pour l'emploi des jeunes. mais boobu tamit xam nga bu fekkee ni boobu war a fekk si FNPJ boo xam ne nërmeelu la ANEJ boo xam ne nërmeelu la OFEJBA boo xam ne nërmeelu la comprendre nga ne nii même na ñu ko fi jiitoon te nërmeelu nañ nga ne da nga bëgg a créer waat leneen. pour yow pour yow conseil conseil national bii nga xam ne pour l'insertion des jeunes yow jàpp nga ne ab Macky Sall pour bu ko defee du baax. parce que moom géologue de formation la. du économiste du financier xam nga tey créer emploi créer richesse ci réew dafa laaj xam-xam bu màcc dafa laaj ingéniosité dafa laaj esprit d'initiative créatrice mhm. comprendre mhm. man tey du ma ko wax dara waaye bëggoon naa tey ki ko conseillé convaincre ko ba mu ne mu ngi créer lii kooku mu ñëw maak moom ñu jaamarloo bu bañ ko teg ci théorie nag parce que tey théorie rek développé dafay yomb parce que théorie tey bu àndul ak pratique ça sert man tey bii tey bu ko bu ne institution bu bees bu mu créé damay def beneen institution de trop boo xam ne créé waat na ko te boo xam ne du du du du wàññi joote sénégalais yi. sénégalais pour yow conseil bi c'est inutile. c'est inutile budgétivore. ah bon man lu may xaar ma ne ban politicien la fay bëgg a dugalaat. et comprendre nga parce que tey président Macky Sall tamit mais yàggul matul 4 mois 5 mois nee mutualisation de toutes les agences. oui ay ACPEX ak ay ADPME. oui bureau de mise à niveau. dañoo xam nga dañoo créé fonds six fonds JIP DER dafa créé créé créé créé ba yow tey xam nga kañ ñaam coono mooy nga xëy seet ci say projet ak li nga bëgg a def que ban moo la ci war a accompagner parce que conflit de compétence la ñun même foire unaan bi ñu organiser chambre de commerce organisé il y deux ans ñu ngi ko doon bëgg waa waa ACPEX. kañ la ACPEX mën a substitué wu ci chambre de commerce di organiser ay foire à l' étranger donc fi mu ne nii kenn xamul affaire yu dingal dafay dafa jaxasoo. bu bon bu bon te ku nekk nag yaa xam looy wuuti ñii yor nañu marteau ñii yor nañu brin ñii ñu ngi daaj mais da ngay dem moom yàgg da ngay taxaw di seetaan. parce que fi mu nekk nii damay xam ne jigéen ñaari mètre lañ bougé wul sur le plan. mais yow kon yow kon mais mais kon bu fekkente ne Birane yaay woon dégg naa en tant que opérateur économique su fekkente ne dégg naa la. mooy même avant Covid bi. Uh-huh. avant mars 2020 le 2 mars. ñi ngi woon ci woon ci jooke économie. waaw te mën mais mais te faites des propositions. mais non mais mais mais may ñëw waaw ministère de l' économie woo nañ ma. ne dañu am réunion bu ministre bi convoqué. danaa fa dem nii pour respect bu ma jox institution Sénégal yëpp. Mhm. mais xaaruma fa dara. eh pour non non xam nga expliqué xam nga ñun ñii. di nga conseil présidentiel bi pour la relance économique. Mhm. ñun daal yëguñu xam nga ñun bu bu bu bu deux mille dix sept bi. Mhm. ñun dem naa man sama bopp maa defoon proposition euh, euh, monsieur le président la république pour ne ko sénégalais yi xaar bàyyi yëpp am nañ coono parce que seen dossier. kenn xamul kañ lañ koy étudier ba jox leen seen baay président dafa tiit ci saa si la joxee instruction ministre Amadou Ba ne ko réunion CCOD boobu di réunir pour jox nit ñi seen boo yeeg yooyu ah kii nee na musul wax man la moo xew président ci saa la leen xoolal 15 bu ne na ngeen def réunion CCOD bu jeexee na ngeen ñëw tous les toutes les semaines ngeen def CCOD ba mu jeex maa ko mais bii pas. ñun dem nañ ci salle bi ñëw nañ toog parce que dañoo foogoon ne comme 2017 la bu président jëlee parole ba pare dinañ wax nit ñi ku nekk a wax. Mhm. ñun daal yëguñu tiinuñu su ñu ne ñu président mooy joxe parole. xeexee eh, waaye ñu ñu leen neex jox leen parole man njëkkati naa la ko président ma ne ma déedéet joxuma parole te man am naa lu may wax. ñu ñu bañ laa jox parole. joxuñ ma mais mais mais mais ça doit être organisé xëy na dañu waxoon ne nii lay tëddee. seen feuille de route la kay. boo ñëwee fii boo waxee sa programme ba pare. oui. comme ni ñu ko defee woon 2017 da nga war a ñëw ne kan moo bëgg a wax ku bëgg a wax da nga yëkkati loxo nga wax waaye doo ñëw rek génne ab feuille rek ne waaw Maodo waxal wala kee waxal wala kële waxal parce que ñooñu xam nga li ñuy wax peut-être que li ñuy wax ne yow xam nga ni danañ génnee xalam bi xalamal la wax la loo xam ne di nga ko bëgg a dégg waaye ñoo xam ne xamuñ fu ñuy fël la doo jël risque bi jox leen parole mooy sama genre gi waaw yow ah, ah mais justement bu la joxee parole nga jékki-jékki sa dur dur ci xeer yi xam nga man man man politique ma man bokkuma benn parti politique xam nga la mooy suma parti politique. Mhm. mooy Sénégal émergent. mooy lu Sénégal def tey ba développé. ba suqaliku ba suqaliku man ci laay ci laay xëy ci laay gont ci laay fanaan ku bëgg a jiboog man ci loolu nga may fekk si waaye nag mënuma tey def ci tey ci économie plus de trente ans di ko gëstu am ci xam-xam bu leer nga ñëw nga may wax ba la puuj de du ma la déglu. bu ma la bëggee déglu tamit dama ko du xol du jàll loolu mooy problème bi bu loolu weesoo ñun administration bi tey jiite ñu nga xam ne tey diggante administration ak acteur économique partenariat la win-win. oui gagnant gagnant. gagnant gagnant nañu administration def ci condition yu baax yoo xam ne ñun ñii danañ mën a développer suñuy business danañ mën a créer emploi danañ mën a créer koom-koom xaalis bi dugg ñu fay suñuy impôt fay suñuy taxe ah mu dugg ci gafaga état bi ñu fay ñu jël seen salaire jël ci seen huit huit nekk seen donkaasi gi mais problème bi tey dañu xaar lépp ci benn côté ñun tey euh, proposition yi ñu mën a defal état bi. Mm-hmm. pour état bi en retour. Mm-hmm. ànd ñoo ànd ak ñun accompagner ñu. Mm-hmm. pour yenn changement yi pour yenn mutation yi pour yenn facilité yi pour yenn goulot d'étranglement yi comme ni ñu koy waxee ñu dindi ko. Mhm. mais loolu il faut nga nekk tey ci li ñuy wax sur le théâtre des opérations. que ci xëy suba ngoon pour xam tey lan moo doxul ci état bi nga defal ko remontée d'information mais fii tey remontée d'information boo mun ti def ni régime présidentiel bi tëddee amul benn ministre tey bu mën a ñeme jël décision te président Macky Sall neel jël jël ko ce qui fait que tey loo soxla tey régime présidentiel. Eh, ci présidence sa dem. mais parce que amuñu premier ministre. amuñu dara ba yëpp dafay dafay jaxasoo ci koom. xëy na day day delluwaat ci moom. te ñun tamit coono gi ñu ci jëlee loolu mooy. ministère yi ñemewu ñoo jël décision. ministère yi remarqué nañ ci ay blocage ba ci CCOD bi mujj nii mooy commission de contrôle de opérations domaniales informé nañ man leen toog nañ cinq mois organisé wuñ ko parce que ministre Abdoulaye Daouda jàllo jiboo wala ak Mame Boye Diao bu nekk foofu. parce que tey dangay ngay nekk président Macky Sall style mooy nommé ay ministre ci même ministère yi nommé fa ay directeur de service centraux yoo xam ne moom moo leen nommé directement te jaarul ci ministre bi. su ko defee du faale ministre bi. waaw muy day blocage man fekkee naa ministre Omar de la pêche ak Cheikh Kanté daanuñ jaaroo taan hmm? waaw Pape Demba bii ak euh, Mamadou Matar Cissé euh, daanuñ jaaroo taan Mame Boye Diao. Abdoulaye Daouda Diallo duñ jaarota am ah, mais ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen man xam yu mel ni mën naa la ci limal lu mat vingt loolu dafa dafa bloqué administration. parce que parce que président de la république su nommé par par par par décret. Ah. même bu dee yow yaay yaay yaay yaay yaay ministre bi bon. bu nommé directeur bi. bu la neexee nga romb doo ko nuyu. yow ce qui fait que yow réunion de coordination bi nga xam ne d'habitude ñoom les mardi lañ koy organiser nga xam ne ministre bi dem conseil des ministres mercredi yóbbuwaale ko mais loolu doo ci mën a participer donc dana am ay secteurs yoo xam ne daf dafay sooxe. d'accord bu baax a baax. mais mais mais mais en tant qu'opérateur économique tey man nga accepte man nga ma li ma lay bëgg laaj dafa jëm ci wàllu naataange réew mi nawet bi ren baax na. Mm-hmm. gis nga actualité la gouvernement bi matuwaay yu ñu jël. c'est vrai que nag teg nañ trente trente francs euh, ci ci ci prix waaw ci un kilogramme euh, bu nekk ñu mm-hmm. exporté mm-hmm. loolu ñu ñuy exporté gerte gi la mais euh, deux cent cinquante francs moom la ñuy jaayee prix gerte gi loolu ak yokk la loolu baykat yi baax na. ah mais kooku moom xam nga. am am na ñoo xam ne maa ngi commencé. discuter ak opérateur yi pour ñu pour ñu pour ñu pour ñu wax ma par rapport ak filière arachidière bi euh, ak euh, prix bi ñu fixé nii. 250 euh, waaw 250 donc amaguma ci retour par rapport ak ñoom lu ñuy wax ci loolu donc. en tout cas taxe bi moom ne gaa yi ne dégg naa ñu naan. waa COPEGA ñu ne dañoo waroon wàññi. ñoom ñi mooy mooy ñu exporté. gerte non non xam na xam naa xam nga ñoom exportation fi mu nekk nii xam nga filière la boo xamante ni dugal nañ ci chinois yi dugal nañ ci chinois yi donc ñoom tey filière boo xam ne nii euh, fluctuation yeeg yooyu do do il faut que ne vraiment ñi nga war a déglu dëgg ñu wax la ci coono gi ci daj gi vraiment acteurs yooyu man rencontre ko dafa dafa marché parallèle waaw marché parallèle waaw ah, c'est yow boo fixé ah, bàyyi ko fa parce que li ñu mën a am ci loolu te xaalis bu teew la wax nga dëgg waaw loolu la d'accord moo bu baax a baax waaw mais loolu loolu manque vision la wala wala wala wala wala wala wala wala lan la wala bokk wala xam nga xam nga souvent xam nga xam nga xam nga souvent am na secteur yoo xam ne surtout secteur yi nga xam ne dañ mën nga cee créer richesse surtout ak chaîne de valeur bi parce que gerte boo gisee gerte di nga ci am diwlin di nga ci am ràkkal di nga euh, ci am tourteau d'arachide bi ngooñ bi sax ngooñ be yëpp mhm. dafa dafa am chaîne de valeur boo xam ne dafa am dafa am importance mais dafa am filière yoo xam ne tey bu neexee état bi day tëj filière bi mën a neex sax mën la sax ah, euh, interdit exportation bi mais dafa na euh, ñun daal xam nga daal ñun daal ñun daal affaire jaaba jàlle la waaw d'accord affaire jaaba jàlle mais mais il faut il faut ñu dellusiwaat ci benn affaire. Ah, ah. li jëm ci mais chambre de commerce. Ah. li man li ma ci jaaxal mooy. Hmm. léegi. Hmm. ña fa nekk ña nga fa. waaw voté nañ. Hmm. gagné nañ leen. toog leen leen bu seen bu seen mandat jeexee. yéen bu dee yéen am majorité bu ngeen gagné ñoom ñu jóge fa jàmm na ñooy. mais xeex fii dem tribunal. nga attaqué ko fii hmm? eh, Birane yaaya woon économiste nga opérateur nga naan damay defaraat chambre de commerce yow ku loolu dafa amul chambre de commerce daa yàqu. xam nga xam nga xam nga. yow ñu xam nga xam nga xam nga xam nga chambre de commerce bëri nañ Sénégal. oui union bi mooy chambre de commerce yëpp union bi Serigne boobu moo ko. boobu Serigne ñoo ko jiite voilà président ah, mais bu Dakar bàyyi leen ko ñu ko jiite. boo xam ne maa ngi koy remercier au passage. Hmm. waaye bu Dakar bi kooku. wax naa la mënul jiite bu dakaar parce que jiitewul dara bu dee président la président néegam la point wax naa la kooku ak man mi sous section mag suma sous section lañ boole annulé noo. yéen ñaar ñëpp ñu annulé ko. cinq trois yi cour d'appel la ko annulé yeneen deux yi cour suprême moo ko annulé Ablaye Sow sous section munoo fexe ba mu baax parce que coono gañ ci am sax ca élection ya woon moom wuruj yeeg sàcc yeeg fen yéeg procuration yu foo yeeg. imitation signature commissaire xarit Sidi beeg yëpp Ablaye Sow moo ko def. yow candidat nga woon. man sunu camp Ibrahima Diagne lañ jiitaloon. Ibrahima Diagne ngeen jiitaloon. après après moom lañ jiitaloon après moom mu dem man ma ma jëlal leen fi. léegi nag yow euh, euh, bi. xam nga a xuloo. yow yow a xam nga problème man du question xuloo wala ñàkkul xam na lu ma bëgg. waaw lañ lépp jaar yoon. mu leer la lépp leer la lépp li jaar yoon problème bi man xam nga lan laa gëmul comme ñoom ni ñu koy defee nii ñëw def lobbying fii wuruj fii jéem a euh, naxaate fii. ñëw dóor ay marto fii dóori marto fii yooyu moom. tant que maa ngi fi di ànd ak sama nafsu bi nii moom loolu loolu daf fay jeex. te doo bàyyi xeex bi. non xeex bi moom dama wax naa la keroog bàyyi julleeg woor moo ma gën a yomb bàyyi xeex bi <laughs> comprendre xeex bi da dadul xeex xam nga xeex bi dañ ko tuddee xeex xam nga problème bi du xeex xam nga coono gi yëpp ñu am ni état moo ñu ko teg xam nga arrêt wax naa la arrêt vingt cinq arrêt vingt six arrêt quarante arrêt quarante et numéro un bu cour cour cour cour cour euh, cour euh, d'appel oui mais est-ce que il suffit que il président la jox leen ma arrêt yi jox ko benn magistrat ne ko lii lan la wax mu ne lii la wax mais ñi kon duñ yendu foofu coono bi état bi moo ñu ko teg. kon yow tax état bi kon nee la état bi moo seetaan. mais non mais non état man fu ma toog moom laay seetaan wax fu ma toog moom laay wax même fii ne def nañ leen citation direct nii. yóbbu leen tribunal ah mais parce que fii ne ni wax naa dañoo fen teg ko ci ndodd président mais loolu ma tamit loolu moo tax ma yóbbu leen citation direct lettre bii ma bind nii président mu ngi nii ah le le le 18 juin mu ngi nii mais mais mais ñun tamit coono gi ñu am yëpp président moo ñu ko teg gouvernement moo ñu ko teg parce que tamit li ñuy wax ne siffler la fin de la récréation dafa war a jot mais problème man lu mu mënta comprendre mënu ko bàyyi Ablaye Sow amul xam bi amul pexe yi amul gis-gis bi nga bàyyi ko ci cadre institutionnel bu secteur privé yow nga xam ne yow président amoo droit signé benn këyit. boo xam ne ci secteur privé. te laajoo ko chambre de commerce. loolu tamit nga toog di seetaan. mais yaa ngi seetaan sa coono yow sa bopp. mais d' mais Ablaye Sow bu fekkente ne wote nañ am confiance ci moom mu nekk opérateur économique amu droit. attaqué ko sëñ Maodo wax naa la waaw sëñ Maodo sëñ Maodo. pour commencer sax dana ab Ablaye Sow dafa bokk ci sous-section boo xam ne moom lañ njëkk a annulé ci élection yi muy sous-section agriculture boole ci annulé sous-section élevage boole ci annulé établissement financier mooy mutuelle yi inaak waaye ubbi woon fii mu fees fi del waaw dafa amoon yu bare bare mais kooku ba mais ñett yooyu yëpp maa ko njëkk a tëjlu ma dem cour suprême cour suprême annulé sama bos moo ma bokk haute entreprise de service annulé entreprise de production de transformation muy cinq sur les am Ablaye Sow moom war na sax toog bu toogee war na am kersa ne man maay président chambre de mais mooy président parce que moo gagné. mais dama lay expliquer moom lañ tànn moo gagné xam nga xam nga tànn boo demee cour cour d'appel. cour suprême. ñu ne annulé lañ lii. waaw xanaa lu ñu annulé mooy ko war a reprendre. mais non seulement reprendre wuñ ko mais Aminata Assome jaata bii ñëw. waaw kon kay ñëw rek organiser assemblée générale. ñu tee ne de fal nañu Ablaye Sow ci loo xam ne ni mënuñ ko woon fal te demuñu waat te demuñu waat élection. waaw te mais problème bi loolu la kay léegi yéen bàyyi leen Ablaye Sow kooku yéen defu leen dara. dem leen ca. non Assome Ndiaye xaw ma la xaw ma ministre bi. Assome moom Assome moom bàyyi nañ ko tout tranquille léegi moom fi ne ne am na lu ko doy ak DIPA CSS yi na toppatoo loolu. waaw na toppatoo loolu. waaye nag ah, fu nekkee sukkar si waaw sukkar si na toppatoo loolu waaye affaire chambre de commerce ñun ñii ni ma ko waxee woon laa koy waxaatee. mais yéen maanaam asam asam asam jaata xaar xaaruñu dara ci moom. waaw poli secteur boobu. kon yow da jàpp ne ka fa nekk gaa ko fa teg. non non xam ne non non ah, mais moom xam nga ñu fi nekkee ñun ñun asom waxuñu ko dara la ah. toog ministère du président Macky Sall moo ko teg waaye opérateur économique yi xaaruñu dara ci moom lu ci gis bis bi lu ci acte yi muy doog a posé en tant que ministre ñun daal fi mu nekk ni daal mm-hmm. ñun daal ñu ci loxo yàlla ñu ngi ci guddi gu bër sa dëggul du ci benn secteur économique buñ nekk chambre de commerce mooy lu gën a tuuti tey lii xew moo tax tey xale yi di dem ci gi di xaru ji mais yooyu mais yooyu mais yooyu mais mais manque d'ingéniosité la manque de vision la mais liggéey mu ngi ci dëkk bi mais tey boo waree jël xaalis pour financer activité commerce nga ñëw dem ko ne da nga koy tabax ay batiment mais loolu y a problème mais secteurs yi tey ñun amul secteur boo xam ne am na secteur yoo xam ne sénégalais ay ci tey secteur touristique ñun mën nañ ko sept cent dix-huit kilomètres de côte la ñu am boo xamante ni tey boo fi tegee bateau mën ngaa dem fëli ndar ñëpp ci tourisme la mais am mais defuñ ko tey pour nga voyager dem Mali ay caaru malien ngi lay yóbbu parce que transporteur sénégalais amuñu caar yu mën a dem Bamako léegi-léegi mais loolu dafa doon ay secteurs yoo xam ne état bi da cee war def xaalis tey ñu ngi ci dëkk boo xam ne amul hélicoptère médicalisé kuy dee fii ci mbedd mi wala nga a wàcc la yóbbu la hôpital amuñu ko te war nañ ko mën a jënd mais yooyu problème la man 2016 am autorisation pour ubbi héliport ah 2016 am autorisation pour ubbi hôpital de secours mais textes yi tey doon ay textes yu obsolètes yoo xam ne permettre la benn yoon nga mën a investir sa xel dal nga mën a créer emploi moo tax fi mu nekk ni emploi mënuñ koo créer yoon bi état bi jël dafa bon baaxul du FONSIS du fons FONGIP du DER du leneen ak leneen du ANAMO du euh, ANPEJ du du FNPJ du lu muy bëgg a créer amul benn bu ci baax vision bi baaxul gis-gis bi baaxul président Macky Sall nag ñun ñu ko mën a mooy conseil teg ko ci yoon maintenant boo toogee rek ñoom ñu théorie ba mu doy leen xëy génne dara te laajul la yow acteur économique loo xalaat ci lii ñun tamit duñ toog leen seetaan waaye fii ak 2024 dana doon coono yoo xam ne moo tax bu gars yi di yuuxu dama ne yuuxu bi teel la xaar leen saliru bi problème baa ngi noonu. d' accord voilà kon nag euh, Birane <laughs> Yaya Birane Wane maa ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm. man la euh, wax dëgg yàlla. waxtaan mm. bi am na solo. dikk nga ci xam-xam en tant que opérateur économique. Mm. léegi yuuxu nañ ci salaire lañ jëm. non ci salaire gu wóor lañ jëm waaye nag problème. bi mooy salaire gën a tàng. mais mais xoolal da nga salaire ba nga xam ne luy tegu ci yuuxu sa baat bi day bañ léegi daal lu ñu mën a wax daal mooy. xam nga tamit bu fekkee ne nag ñu ñu ñu dem ci ci émission bu mel nii. Mhm. Euh, wax ju dëgër këgg. il faut que tamit bu ñuy pare ñu ne ñun duñu ay politiciens ñun ay techniciens lañu. lu ñëw dañ koy wax wax ñu koy kii. ni ñu koy gisee waaw ku ubbi woon suñu dënd tamit li nga fi fekk. gëm-gëm la gis-gis la. bokkoo ci benn parti politique. Euh, intéressé waaye nag bëgg naa 2024 bu président Macky Sall demee bay dem ñu jël lenge bi jox ko acteur économique comme ni américains yi def parce que Trump. moom euh, Trump moom acteur économique la moom mu ngi ci mu ngi ci volet immobilier wala nga jël ko mel ni Patrice Talon ñu essayé homme d'affaires fonctionnaire daal wax dëgg yàlla doy na quoi coono lañ ñu yokkal quoi d'accord jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Birane Boye Birane Wane yaa yaa Birane Wane ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm bokk yi ñu doon déglu tamit ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm waxtu wi moo ñu jot beneen dimanche incha allah daañu dikkaat ci beneen gan wasalaam jërë ngeen jëf